falu di buur yaa gën lu ñuy bëgg a kaw yaa gën lu ñuy dox di mébét yaa mat a bëgg mat a wut yow golaam falu di buur jóge nga yow faw bi suuf doo def yow mukk bi suuf sabe nga doo sabe nga soof ñam nga wutul la bëgg a xuur sant nga yow te santulu sopp nga yow te soppulu topp nga itte topp nu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sës rëkk ci buur yaa mën a saytu gaay buur bégal nga buur ak gaay buur ñëpp a bëgg ci yow buur naka ba xam ni duma góor fiir ba xam ni yaa di góor laa ñëw te naa jaajëfe góor saw desa tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara teeg ëllëg mu ñu lu dóor teeg ëllëg mu ñu lu dóor bokkit bu ñu ko door te ko gamit bu ñu ko door noo ngi fi aw di te ëllëg bu ñu nu daan sunu bokkit bu ñu ko daan te ko gamit bu ñu ko daan bu nu gisul ak ko góor beneen ba def na la jiba nanga nu def faw jiba te bu nu wàcci bu baa def nu ko jub ku def nu waaye buur waaye buur magee du bu wér man ba jëwal sama dand nii te kañ nag borom Touba ki xëy ba fuure ki kaan yëpp ne jàng fi jariñ ni moo fi daan ba buuri warab ku ci bañ du wéy mu far tekki lii nag seeni yëpp ñu ni moo fi daan nun bunti yàlla ya noo far dox kenn burugul ñu bokk ni moo fi daan waa ji noo ci des mu yëngu ni ngar bit yëpp dem ñu ni moo fi daan mu xëy diglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu xëy diglu déggul fenn kuy baj bajee ka mu ñibbi gërëm daanaan googu lu yàgg daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di way diw bëgg a bës ndax may laram bu see ba daan dama bariwul xam-xam ak jur te lu rëy luy waral kuy du ma jéem a daan sëriñ bi bégal sa fon na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bég te yàlla bégal na la bégal nga sëriñ séppal muy di ba ñépp bég nga ndam saytaane bañ na bañ na la nga saabay Mustafa teg ca Mustafa te jël nga ndamal mbooloo bari yëpp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonenam ba nag ku rëy nga ba biir yàlla xel yi xam na la nga jullit tey bépp yéebar mu wéy nga wéy telef mënu laa yàqal kañ ñëpp kañ na la jullit ñële ak yéebar yi ñoo bokk yam ci yow amul ku ci xam as lëf ci yow mi la bir na la ku nëpp ku feeñas lëf nga mboolem lu dee fi naw sab soppe may na la da ngay sab ko teg téeméeri junni di as mbarab te bee ñal ca benn junni ñuy fat ni benn la dogon kon ngëmee nag ne la wax xaran sëriñ sépp booloo ñëw di mbir ngi lew na la ku not gaynde not segg ak mëfër dàq ñay mu daw du solo woo ki bay na piltir yàlla gis na la ku lay def moroomit xam na xel ni yaa ko man lewet gee la sarax lu ngërëm sooy yokk fa wuute du utu de te daal nuy bégal ngir Mbàkke yàlla bégal na la amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf magal magal na wax ci magal bi ñëpp fekk na wax ci màggal gi te murid yëpp fekk ko fi jox ko dee suñu moom mi daal pëseef ci màggal gi pëseef boo xam ne bépp ku képp kuy murid barki yi war nga ko ndax turam yi fi te teewul ay tool la yor caar nekk fa moom tund ak suñu tubaab di bay tool yoo xam ne màggal ba màggal la koy bay boobu pëseef bu ko amee toog fii ñun ñëpp nañ jël li muy waajale màggal gi ñun ñëpp ñu fexe. ku jub di màggal.